internautes yi bàyyi xel ci sene info point net ak sene info international ñu ngi leen di nuyu fas leen defal tënkub xibaar tey lundi di juin ñu tàmbale kook xibaaru biir réew mi général Moussa mi nga xam ne moom moo remplacé général Jean Baptiste Tine ci bopp gendarmerie nationale moom nag jot na amal ab opération de sécurisation fële ca Kër Massar barki démb ci guddi lu toll ci agent agents yu gendarmerie participé ci opération boobu nag tax na ba ñu teg loxo ñu bëri ñoo xam ne dañoo jàpp ne kon ay defkatu ñaawteef lañ fête de la musique ba sub tey bii lañ koy màggal ci àdduna fii ci Sénégal itam dinañ ko célébrer am na ab concert bu ñuy waajal fële ca place de la nation bu weesoo concert boobu itam fële ca théâtre national Daniel Sorano dina am xew-xew ak fële ca Pikine ca Guédiawaye ca HLM maison de la culture Douta Seck Parcelles asseni ak centre culturel Blaise Senghor fu si nekk kon am na ay ndaje yu ñu fay waajal ba léegi ku ci mel ni Lemzo Jamono di lamin Faye Latir Diouf di premier manager bu Youssou Ndour technicien bi di Moustapha Seck rappeur bi di Xuman ak itam Thione Seck dinañ leen décorer. syndicat bi nga xam ne kon euh, dafa ëmb enseigne kon ay jàngalekat yu enseignement supérieur bi ñoom nag euh, dañoo tàmbali ab grève ba suba lundi bi grève boobu nag li ko waral daal mooy dañuy laaj euh, lii di euh, état kon euh, nañu xool violence bi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ca UCAD nañ lañ koy saafara xam ngeen kon fan yi ñu génn daal UCAD dafa bëri ay violence ay étudiants yi fa doon song ay restaurant di yàq ak yi ni ak itam sax ab prof professeur boo xam ne dañ ko fa attaqué loolu nag tax daal ba waa kon dañoo mer ba ne daal lii di état bi nañu xool nan la indee saafara ci mbirum insécurité boobu am foofu la ca UCAD ci Afrique nag dañ koy tàmbale fële ca Éthiopie eh, nga xam ne ba sub tey bii kon dañ fay amal ab ay élection législative muy muy élection yoo xam ne sax eh, doon nañ ko xaar lool ñuy nag eh, dañuy ragal nag boobul élection am ay perturbation ak yi mel ndax xam ngeen fi mu nekk nii foofu foofule ca fa ñuy wax Tigré kon te nekk foofu la ci Éthiopie dafa am guerre te it am na ab xiif bu fa am ba tax daal ñuy ragal ne loolu dina am lu mu jur ci lii di élection yi frontière u Sénégal ak Guinée Conakry nga xam ne ñu ngi ko tëj depuis mois octobre mois octobre bi ñu weesu kon te te sax nga xam ne président Alpha Condé ba mu koy tëj moom waxtaanu ci ak kii di président Macky Sall dafa tëb rek tëj ko ne sax kon ay mbirum sécurité moo taxoon mu def ko loolu la di frontière bi ñu tëjoon nag kon jàpp nañ ne lu yàggul dara dinañ ko ubbi ndax sax li nga xam ne moom mooy sommet de la CEDEAO bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal samedi fële ca Ghana te ki ko jiite di président gana ba nga xam ne moom moo nekk en même temps président en exercice euh, bu CEDEAO di Nana Akufo-Addo am na nag ab mémorandum boo xam ne kon euh, signé nañ ko fa muy ab euh, accord boo xam ne kon signé nañ ko fa nekkoon ñu mën a jàpp ne daal fan yi ñu dégg ma rek lii di frontière bu Sénégal ak Guinée Conakry dinañ ko tijji. fële ca Mali nag force française ya fa nekk te di fa amal li ñu naan opération Barkhane ñoom nag euh, dañ leen attaqué ba sub lënd bi li ñu naan attaque à la voiture piégée maanaam ab ab oto boo xam ne daal daa yeb bomb kon moo dal seen kaw fu ñuy wax fu ñuy wax kon quartier bu Kaïgourou ca Gossi nekk ca Mali am na nag ñu bëri ñoo xam ne ci ñoom am nañ ca ay gaañu gaañu xibaaru bitim réew dañ koy tàmbaleek euh, déclaration bi nga xam ne euh, kii di premier ministre bu Israël euh, Naftali Bennett def na ko jëmale kon ci lii di pal bi nga xam ne fal nañ ko kii di Ibrahim Raisi euh, fële ca Iran moom nag nee na fi mu nekk nii fal boobu nga xam ne daal fal nañ ko Ibrahim Raisi nee na ab signal la signal la boo xam ne kon pour puissance étrangère yëpp maanaam réew yu am doole yëpp loolu ab signal la jëmale si ñoom moom sax nee na fi mu nekk nii balaa ñuy signé beneen accord ak li nga xam ne moom mooy kon. nguur gu bees boobu nga xam ne am na foofu la ca Iran mooy nañu saytuwaat bu baax a baax a baax li nga xam ne moom mooy programme nucléaire bi. xibaar sport nag dañ koy tàmbalee ak stade Lat Dior nga xam ne pelouse bi nga xam ne baaxul juróon na fa juróon na fi fan yi ñuy génn kon ay coow yu bëri bu ñu sukkandikoo nag ci waa fédération sénégalaise de football nee nañ nekk nii sax engagé nañ ab entreprise boo xam ne kon dina réaliser benn forage boo xam ne 130. mètre de profondeur lay doon ngir mu mën a renforcer kon forage forage bi nga xam ne dafa nekk te forage boobu amul capacité bu baax ngir arroser loolu de di stade ba kon nag nee nañ forage boobu bees boobu ñu ko defaree dina tax ba problème ndox yooyu ñuy nemmeeku ci gazon bu stade Thiès dinañ ko saafara ki nga xam ne nag mooy international français bii di. Ousmane Dembélé nga xam ne kon euh, moom dafa amoon gaañu gaañu gannaaw bi nga xamee ne ñoom ñu ngi doon football ak waa Hongrie mu jëlee woon ci gaañu gaañu nee nañ nag gaañu gaañu boobu tax na ba fi mu nekk nii moom déclaré na forfait kon daal euh, boo moywul kii di Ousmane Dembélé li des ci euro bi nar ko football ndax gaañu gaañu boobu la nga xam ne am na ko leen doon seen xibaar rafetlu seen teew lu ñu jox ëllëg jaa jëf.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 moo ko tax a jóg